en compagnie de Virginie. Elle est plus à présenter également. Hamengenko. elle est n'est pas du tout timide. Hein. Ça, c'est moi qui vous le dis. Trop timide. Alors, je vais vous sur téléspectateurs. Euh, bonjour à tous, je vous salue, vous tous. Euh, euh, elle n'est jamais sérieuse, vous voyez son, vrai visage. Mais dis-moi, qu'est-ce que pour saison 2 Virginie Ah, saison 2, je suis préparé en France comme ni ñu demoon rek euh, dem Kennedy la fois passée dañuy dem ñëpp ubbi ay club Virginie. Mm. ak seen benn euh, sponsor ngeen ànd ak coach euh, team. si si keroog yëngal ngeen Kennedy. non gis nga dañuy def ay school tour léegi école bu nekk dafa war a ben team mu tuddee ko club Virginie école par exemple c'est du Nourou Tall wala Kennedy et cetera donc instant loolu pour si loolu lañ nekk nii. est-ce que votre série am na impact positif ci nga xam ne moom mooy le milieu scolaire. man personnellement sama école je pense que amna fa impact positif déjà li li xew ci série bi on retrouve ça à l'école à l'école amna ño ñoo que ils sont comme ça amna ño ñoo comme man ak kati lañ mel amna ño ñoo que comme ñaari seytaane lañ mel tu vois donc euh, affaire bi c'est li xew ci réalité bi lañ jël def ko ci série bi te je pense que ñi ngi éduquer di kiiwaale donc ça va quoi. mais ci biir série bi on a constaté ben familiarité c'est-à-dire que yéen vous êtes tellement soudés quand même en dehors des caméras lenn lu ngeen inculqué lu ñu leen inculqué la wala seen seen ça a été facile. non ça a été facile parce que xam nga ambiance plateau bi genre ça va ñu ñëpp dañoo déggoo là-bas tout le monde s'entend bien franchement problème bu amee sax genre ñum les euh, les grands ils parlent avec les les jeunes et tout ça donc euh, ça va vraiment foofu moom. est ce que bës na la arrivé genre nga joué ba pare jooy su ruq dem sama ruq bu ndaw nga jooy parce que tu as tu as eu peut-être que tu as eu peur. wala am non non non non musuma dara musul musul musul musul calme <laughs> musul calme mais ma bàyyi la nga nga tok sax la yow ak suñuy bon je vous remercie ngi leen remercier ci attention bi ngeen ma porté li ngeen ma déglu et franchement grâce c'est grâce à vous que nous sommes quelque chose donc on vous remercie. merci beaucoup.